waa tey nag ñu ñëwoon fii si école Mamour Diop pour jox leen li nga xamante ne nii la vote yi déroulé tey jii gis ngeen nit ñi ñëw nañ en masse gis nañ ni ñaa ngi ñëw di voté booba léegi nii ku ci nekk rek yaa ngi ñëw def li nga xamante ne mooy sa àq ak sa yelleef li nga xamante ne nii moom mooy vote yi gis ngeen lii moo fi xew tey jii nii nit ñi ñëw nañ bari nañ fi mën naa ne aussi fekk nañ fi histoire boo xamante ne mën naa ne ñaari partie yoo xamante ne ñu muy waaw ñi nga xamante ne mooy Arouna Sarr ak ñi nga xamante ne mooy waa kër may Meysa ñoom ñoo fi doon histoire tey nii mën nii ñi ñuy ñëwee mën naa ne euh, arrangé nañ problème ba lépp saafaraw mais bëggoon nañ xam tamit lan moo créer problème boobu noonu ba ñu laaj ñi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk ñu jox ñu seen xalaat ak seen gis-gis nan lañ gisee histoire bi fi amoon léegi nii fii si RS TV waaw ñu bëggoon ñëw si loolu papa ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon doon xeex tanaas kan la. bon ñaari euh, tanaas la quoi benn tanaas bi c'est euh, ay ay éléments Roune la. Uh-huh. beneen élément bi ay éléments wu euh, uh-huh. mais ñoom ñëpp ñiy xeex ma yaakaar naa ne ñoom ñoo bokk benn champ de course bi quoi. Uh-huh. bokk benn est bi kon ba a mën a boole. ba ñu war a mën di reyante di xeex di parce que diggante Roune Sarr rakk la. doom la ci au niveau de champ de course. Ah, comment dire hmm, Doudou Maïssa tamit doom la rakk la fii Euh, au niveau di euh, les kon yaakaar naan ay militant bu dëkkandoo benn koñ dëkkandoo benn koñ di dëkkandoo di yàlla du màggandoo dëkkandoo kon yaakaar naa ne xeexoo xuloo yi war na war a mën a arrêté quoi dëgg parce que ñu ñëpp ñoo ñëpp benn ñu wotee bon si fair play que le meilleur waaw ba tax na gaa yi yéen a ko déggandoo euh, dégg ngeen li suñu papa ji wax mën naa ne bi coow li amee mujj gi sax ñi nga xamante ne nii moom mooy takk der yi ñoom ñoo mujjee ñëw pour mën a arranger problème boobu ku ci nekk mën a delluwaat sa la nga xamante ne moo la fa indi muy ñëw pour voter ñibbi si jàmm. ndaxte nee nañ ginnaaw ay jaam ba tax na sax bi ñu xoolee gis nañ fi ñi nga xamante ne nii yeneen parti politique yoo xamante ne ñoom gis nañ seen i leader ñëw nañ ñi nga xamante ne nii def see seen ñoom tamit seen ak seen yelleef ba tax ki nga xamante ne moom mooy Lamine Niang mi nga xamante ne nii moom mooy responsable politique bu waa Benno Bokk Yaakaar moom tamit fekk nañ ko fi tey jii nii ñu bëggoon a xam ki nga xamante ne ni moom mooy président Lamine Niang lan moo doonoon tey sa teewaay fii ah ñëw voté si rek comme ñëpp. waaw def un acte citoyen. le choix de mhm. gis nañ ne tey jii waa APR tey jii ànd nañoo confiance ci élection tey jii nii ba nga xamante ne seen éléments yi mën naa tey ni ñu génnee daal seen xar kanam boo leen gisee xam ne tey am nañ kontante. Mhm. ñi nga xamante ne mooy militants yi ak citoyens yi tey jii bi ñu taxawee ñu bëggoon a xam lan mooy sa gis-gis si loolu. waaw parce que boo bokkee ci dara. Mm. waroo xaar ku la ci tey li am nii li nit ñi mm. génne nii moo lay wan. Mm. la coalition Benno Bokk Yaakaar. ba tey c' est mu bëgg nag lu mën a am rek nañu gën a def plus d' pour que yu mel ni gars yi mu a am parce que la machine électorale Benno Bokk Yaakaar fekk naa si woon. te mun ko contenir. alors c'est vrai que malgré quelques péripéties affaire baa normal mm. parce que les gens ont le président dans leur cœur mm. quel soit le choix opéré donc loolu mooy ci am solo te tamit lii mooy nekk loo xam ne c'est assez encourageant pour kenn ku nekk koo xam ne war nga a bokk ci dara mm. war cee ba tey ba tey fii si RSTV ñu fekk fi aussi tamit ki nga xamante ne moom mooy doon Diego doon Diego ñëpp xam nañ ko fii si Sénégal Don Diego dañoo bëggoon a xam tey lan moo doon sa teewaay fii si école Mamour Diop. Euh, salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum partout dans le monde nuyu waa Tëngéej fii ma dëkk yaroo fi màggee fi euh, dama ñëwoon non seulement pour voter si école Mérina Mérina fa ma dëkk ànd ak président Lamine Niang sama ami d'enfance depuis ba ñu ñu nekk euh, koy jàppale tamit ci plus euh, ñu am leader boo xam ne mooy Ismaïla Madior Fall moom it très correct très respecté man moom tamit ñu yàgg xamante bu yàgg bi que muy jànge fii euh, lycée Abdoulaye Sadji à Rufisque donc euh, bu amee loo xamante ni pour moom la ñu yéene ko jox Tëngéej dama koy jàppale rawatina nag Lamine Niang mi nga xamante ni président Lamine Niang di président ànd dëggal sa bopp moom it bu ma damay jóg voilà ñaar ñooñu ma yëkkati ñoo ma yëkkati moo tax ma jóg ñëw tamit en même même temps voté li may voté votel ko nag votel Ismaïla Madior Fall ñaa Ismaïla Madior Fall votel bëggoon nañ xam aussi nan nga gisee vote yi tey jii nii fii si Rufisque waaw waaw waaw ça va d'après euh, bi ma jógee c'est c'est euh, vraiment c'est bien organisé euh, ma ñëwati fii encore fekk fay tamit nit ñi vraiment sont très corrects bien posés ñu ngi nii amuñu benn problème ñu ngi vote ci vote bu extraordinaire macha allah. waaw lii la ñuy indi loon ci vote fii ci centre Mamou Diop commune Est fii ci RSTV la chaîne leader.